alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala message bii day dafa nekk message boo xam ni maa ngi ko jëmee ci bépp jullit waaye rawatina sunu mbokk yooyu muy waa xisbu tarqiya nga xam ni nin ko gisee ñun ñëpp démb ñu gis ñu dem ca université chidia chia ya dafa ak ñoom benn entretien wala benn ziar boo xam ni seen yéene ca ginnaaw ga xëy na mooy seen donga yi génne ci seen école yi ñu mën leen a yóbbu foofu ñu continuer fa man day wax dëgg yàlla bi ma gisee loolu tiit naa ci am ci njàqare su fekkoon ne jamono jooju am naa numéro kilifa ga nga xam ne moo jiite xisbu tarqiya ci saa si dinaa ko woo téléphone xamal ko li ma ci xam te yàlla dong tax ndax nit ki moom maa ala rasuli illa balaax yonent bi sax yàlla daf ne ko jottaleen rek moom moom nga am léegi nag ki gëm ak ki gëm kook sa yoon nekku ci mais na sa yéene rafet ki lay nangul ak ki nangul sa yoon nekku ci parce que laa la di man ahbabta walakin allah di man yasha waaye ànd ak loolu gàttañ liwuma jëm naa woo ay kilifa yoo xam ne jàpp naa ni mën nanoo àgg ci ñoom wala mën nanoo toog ak ñoom wala mën nañ leen a woo téléphone xamal leen dëgg-dëgg lan mooy chia ba ñu na a jël seeni gone ak seeni doom di ko yóbbu ci seeni université kon lettre bi maa ngi koy jëmale ci sëñ Youssou maa ngi ñaan mu jot ci te am naa yéene yaakaar ni dina ci jot waaye képp ku ko seetaan it te am pexe bu ko kilifa googu mën a jote mu jiite xisbi tarqiya muy sëñ Youssou Diop yaakaar naa nga jéem a fexe mu jot ci te yàlla tax wallahi jubluwuñ ci lu dul alerter ak gis mbokk jullit boo xam ni mm, lanu njortu ñun mën naa am nag du noona la jàpp ñun mën naa am it du noona mooy dañoo gis ni kat lii su sottee mën naa dugal nit ci kàmb mën na koo lor wala mu lor njabootam ñu ni nan taxaw waslu ji ak te yàlla dongu tax sëñ Yuusu chia yii day boo leen xamee xam seen pas-pas doo mosa xalaat di jël kenn ci sa njaboot muy góor muy jigéen ni danga leen di yóbbu foofu ñu jàngi ndax danga wuuteeg ñoom ci pas-pas ci yu bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëree ñoom yow ni nga xëyee di tudd Aboubacar Siddiq Abu Omar Ousmane ak Ali ibn Abi Talib naan radiyallahu taala anhu ñoom noonu la ñuy xëyee di leen tudd naan yàlla leen yàlla rëbb laanatullahi alayhi lii boo demee ci seeni téere danga ko ca fekk ma fees fa dell boo duggoon seen bibliothèque booba nga xam ne mi ngi ci biir seen université rek wallahi wa rabbil kaaba di nga fa fekk lu bëree bëree bëree bëree bëri doy na la ba nga xam ni seen kilifa gi ñu gëm muy xumay ni téere boobu mu bind muy kashful asrar boo demee ca biir yàq na fa Aboubacar loo xam ne weñ wu ca dal dee Aboubacar ni Siddiq Aboubacar ni Siddiq kooku nga xam ne mooy zu siddiqi wal wafa rafiqu nabiyul Mustafa al gaara amba yàq na ko fa ba ni sax day sosol yonte bi sallallahu alayhi wa sallam loo xam ne yonte bi wax ko yàq na fa lu ñaaw amar ibn al-Khattab dem ni ba ni Omar ibn al-Khattab la moom Khomeini ayatullahi al-Khomeini ci boppam te mooy seen kilifa. chia yooyu ñooy ñi nga xam dañoo gëm ci seen biir xol ne alquranul karim bii matul alquranul karim bii nga xam ni mat na ñëw ñu fonk ko ñun ñëpp ñoom danoo jàpp ni matul danoo jàpp ni am na lu ca manqué la ca manqué nag ëllëg balaa àddunaa tukki euh, ku ñuy wax mahdil muntazar dina génn mottali ko téere bii nga xam ni mooy téere bi gën a tedd ci téere yépp ñu gëm ni la yàlla wax ne inna nahnu na dhikra wa inna lahu la xaafidun yàlla moo ko moo koy sàmmal boppam yaa kitaabal karimu anta xabibi wa xalili wa qabla kunta tabibi soo fa yóbbee sa njaboot day dinañ ci def pas-pas boobu soo yóbbee sa njaboot ca chia ya dinga dem ba rawatina jigéen ña dinañ dem di jaay seen bopp jaay seen bopp laa wax déglu bu baax li may wax te maa ngi euh, bàyyiloo askan wi tamit ñu déglu ko li may wax ndax dana am lu ñu gëm muy seen pas-pas lu ñuy tuddee al mutaa muy mariage temporel nga xam ni moog njaaloo yam wala mu yées njaaloo mooy jigéen ju manti doon mën naa waxante góor gu manti doon mu ne ko may naa la sam bopp baayam du yëg benn kilifaam du yëg deux heures de temps trois heures de temps euh, benn semaine suñ paree mu jeex te dañ koy def ak seen élèves yu bari nag wallahi alladi laa ilaha illa hu yàlla doo nga tax may wax te lii may wax ni eh, am na koo xam ni seede la ci te mi ngi dund am na soxna soo xam ni bëgguma tudd dëkk bi mu nekk boobaa maanaam mbir ma day leer ndaw soosu ba mu demee di jàngi ci seen eh, école yooya sama xarit wax ak moom ba sonn pour mu juge ca ndax ñooñu seen pas-pas ak ni mu garaawe ndaw su ne ko amul benn problème ñu man munuñu maa soppi man li ma gëm-gëm naa ko ba pare ndaw sa nekk fa matagul sax un ba mu fay jógee dafa daw bis la téléphoné sama xarit boobu ni ko man de foofu jógee naa fa ñii daal ndekete ñu bon lan mu ne ko ah lu tax mu ne ko man daal bis laa euh, wàcc yendu foofu ñibbiwuma am kenn ci profit kun naan diw tudd turam ñëw di ma Euh, proposer mariage temporel ni ma dama la bëgg a takk léegi pour trois heures de temps après euh, sëy bi jeex loolu nag bu ngeen jëlee seeni njaboot yu jigéen di leen fa yóbbu ñuy jàngi bis bu ñu nekkee ca loola na ngeen xam ni wax dëgg yàlla am ngeen ci part de responsabilité te li gën a garaaw ci mariage temporel boobu nga xam ni su wuutewul ak jigéen ñiy jaay seen bopp waaye dama naan sax moo gën a yées ndax jigéen ñi jaay seen bopp boo leen laajee lu tax ngeen di def nii dañ naan la topp suñ bakkan waaye boo laajoon jigéen ñi ak chia lu tax ñu koy def ñu ne la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo na ko sant la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kon ak seen yeneeni pas-pas yoo xam ni comme lii maam ci buntu laaye biir la buntu alerte la duma ci xóotal lool waaye ay waroom xam-xam ngeen ay boroomi xel ngeen man li may ñaan parce que euh, Sénégal dañuy mën a polémiquer lii mën na kii rek benn chia jël ne non ñii ay ay ibaadu lan ay sunnit lan ay nangam ñuy contre nangam na wala sax ay wahabit lan tàmbal di wax fekk loola du jubluwaay ba bëgg a lëntal ak jaxase ba du ngeen déglu li may wax mooy tax ñuy wax wax yooyu mais yàlla xam na ni li may tëjee mooy. su ngeen xamee pas-pasu chia dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg du ngeen sax xalaat jël seen njaboot wala seeni élève naan leen yee ngeen yóbbu foofu ñu jàngal leen su ngeen leen fa yóbbee nag bis dina ñëw ñoom ci seen bopp bu ñuy bu ñuy saaga saxaabatul kiram bu boobaa kenn ku ci nekk ci yenn na jàpp am na role boo xam ne ëllëg dina ko layoog boroom bi subhaanahu wa su ñu amee yeneen pas-pas yu ñuy génnewaat yu bokkul ak yi ñu xam ci lislaam depuis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba léegi na xam ni bu boobaa fa ngeen leen dugal moo tax te nag daw ba ngay ami tànk kon maa ngi ñaan sama kàddu gi euh, bu toqee euh, ci sa nopp nga jàpp ni rek déglu ko ak euh, xoole ko ni kenn daal ci sama mbokku jullit ñi mooma ci laay biir te yàlla dongu tax même bu ñu bokkul euh, kuréel ba ñuy yëngatu même bu ñu bokkul ci yenn ci xalaat waaye nag am na droit laaye biir ma te yàlla tax am naa droit laaye biir ko te yàlla tax yàlla nu yàlla defal déggal ak topp yàlla nu yàlla sàmm yàlla na nu yàlla teel suñuy njaboot yàlla nu yàlla dimbali ba musal ñu ci pas-pasu chia yi nga xam ni bis bu ko nit xamee dina xam ni Euh, ñoo gën a garaaw sax yahudi yeeg nasaraan yi yàlla na ci yàlla musal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.